mbokk yi yéen a seetaan ci biir réew mi ak ci bitim réew noo ngi nii nag abonné leen bokk leen aimé leen partagé leen jaa jëf. avec Dieng Saala TV bu leen fàtte laal ko si notification bi loolu mooy tax vidéo bu dugal rek ngeen mën cee jot. ci daje tey ak mboolem jàngkati xasida yi ndax moom ku ne xam na digganteem ak xasida ba léegi bi ñuy ñëw rek mu ngi taal téléphone am di déglu xasida yi jamono bu ñu àndee bu ne bu nekkul di jàng moom ci boppam nekkul di werdu jéem naa làmb rajo bi fo fuy jàng xasida mbaa bu ko amul mu jël téléphone am di ci déglu xasida mbaa mu jël tablette di ci déglu xasida ba ba ñuy wàcc loolu nag yaakaar naa ne bokk na ca gis-gis ya nga xam ne njaboot gépp gis nañ ko ci moom ci ni ko Seex Mbàkke ja waxee sànq ñu xam ko ci pas-pasub sëriñ bi rek amul jenn yitte ju may sëriñ Touba amul jenn yitte ju may bëggug sëriñ Touba loolu rek ci lay dox ci lay wax waaye leneen lu dul loola doo ci dégg sëriñ mu talaat doo ko ci dégg loolu yi doon loo xam ne lu am njëriñ la ndax gis ngeen ne rek waxtu yàlla bi bi mu xasee dëgmal nangootul ñu defaat dara ci diggante bi lu may joxe farata yàlla ji ba noppi leneen lu ñuy dem ñu door caa dem loolu ku ci sëriñ Tuubaa ba muy sañ ci céyeen Jolof dafa yebal mag ñi ba mu ñëwee mu fekk néeg yëpp sotti te defaraguñ jàkka mu dal ne nañ xeddi wat mbolem neeg buñ xadon ñu wat neeg yëpp mu ne nañ taxawal jakka ji ba doore wol ba di ko xaddaat ñu taxawal lola xeddi neeg yëpp dem defar jakka ji ba taxawal ko doore jël siwaat xaddaat néeg yi ya. bañu noppé mu dajale len ni ngeen def ci kanam sëriñ bi ne len dama leena bëgg xamal misal ci yalla borom bi ne leen dafa am góor goo xam ne dafa yoroon lu menn mbaam ci lay faj aajoom yépp ci lay dund mbaam mi nag su xëyee wëtti fu timis jot dana dellu siwaat nee na yàlla dogal timis jot gisul mbaam mi teñ nodd ba daaneel nee na kër gi it ab reer amu fi waaye mu daal di ne ginnaaw nodd nañ daal di lalu deram julli nee ba mu joxee yàlla li moom ba àggal ba mu wëlbati ko ba toog ay gan ñëw nuyu ko di ay jëgg yoo xam ne dañ koo wax ne ko ñun de dañoo taamu woon a bëgg a fanaan fii ba suba ñu door a jàll mu leen kër gi day këru yàlla man ngeen fee fanaan de waaye ab reer amu fi ne gaañ jëgg yi daal di jóg gisee waxtaan daal di wax ne ginnaaw ñun yor nañ dara nañ dajale kenn ku ne dara ñu joxe ab gaa yi dajale joxe ab reer ko may loola ñu ne ko déedéet Mbàkke mu ne jox gim jox yàlla lim moom ci moom su fi su fi bàyyi woon noddu suñu borom gii mu woote dem di seeti mbaam ma du ko gis te bu del si waatee dana fekk jëgg ji jaar fi ba dem duñu ko gis wala ñu gis keneen waaye waaye bi mu joxee yàlla lim moom rek ne yàlla da ko daal di moom ñoddil mboolem lu mu waroon a aajowoo doxi ko moom loolu moo tax sëriñ bi it doxe noonu ci jotaay bi waaw kon nag yaakaar naa ne doxin woowu am njàngale la ci ba tey ci Serigne moom ci boppam tudd gii ko Xaadim Kebe tudde bis bi doon na yitteem lool ndax kenn yi mu ko tudd di tudd leneen lu may lu mel nii rek ndax moom jënguwul ci lenn lu may lii dëkkub Serigne Touba bi muy dox saa yu gisee fi loo xam ne bu ko sëñ Muntaxa gisoon wax ca dara moom moo cay njëkk jaar wax ca dara soo waxee mu ne man damay liggéeyal sëriñ bi kon nag taxawaay boobee mu taxawee mooy moom xool lu may sëriñ tubaa rek doxit lu may ci loolu moo waral li sëñ xaadim tànn ko ci bis bi ndax bis bii waaye juróom yi ko nuyu léegi moo ko sàkk sàkkaloon bis bi digal ko ko te ndigalul waay jur ci doom yaakaar naa ci la lépp nekk ndax Serigne Touba sax ba mu fi nekkee soo ko ma saa jox sa bopp day laaj ba xam waajur yaa ngi fa am déet soo ko ne ña nga fa mun a demal yoral ma leen kon yakarna anda ak sa wajur ba wax kaddu gi mu wax serigne Moutala ne ko mom mako ko jur waye geureum nako ko su ma ko gërëmee nag wax lako tek ko ci say loxo samam xel dal na ci kon yakarna bu ko jaarale wud won fam ko warona jaarale du am mu nang lola lol te taxawé ko ndax yakarna naa tambali jang yag na lol ndax jang ka di tay da melni sen kilifa ngi ni tok muy Ablaye sek serigne Ablaye day toqi na gone yu bari ci njàngum xasida royes na ko ci lu mat a roy ci yoonu Serigne Touba dox na ci doxin wu rafet itam yaatal na ko it ba ñëpp jot ci xatalul boppam it ci benn jamono ci suñ ko soxla ndax loolu rek mooy yitteem loolu it moo waral jotaay bii moo tax sëriñ bi bi ko sëñ Xaadim Kebe dina la Ablaye Seck mu ne ko ba ma koy xam juddoogoo loolu waxin la ci ne rek yàgg na ci nii mu mel te man ci laa ko xame woon kon loolu lépp ay tegtal la xasida nag dafa doon loo xam ne sëriñ Tuubaa mi yaakaar àddina ak àllaaxira ci la liggéeyal yàlla boroomam ba am ngërëmam ci la liggéeyal rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam ba am ngërëmam kon képp ku yaakaar sëriñ tubaa war naa doon sa yitte te gis naa sëriñ Muntaxa tey rek muy wax ak nit ci ci xasida yi dal di koy wax ne ko ku bëgg di gis Serigne Touba saxal ci xasida yi dal ne ku bëgg am Serigne Touba saxal ci xasida ne ku bëgg loo nekk Serigne tubaa fekk la ca saxal ci xasida yi kon loola rek ab tegtal la ci daje gi mu daje bis bii te sànq rek laa ko laa ko laa ko gis. jëmm ju baax ji daal di waxtaan ak sëñ Mountakha dal di ko ne man de xasida yi li ma ci doon doy mooy li sëñ Touba taalif lépp ñu jàmbal ma ko jox ma maanaam. bi bi mu ko waxee sëñ Muntaxa sëñ Muntaxa dafa ree dal koy song ne ko yow de ma damaa ànd ak yow kon pas yi benn pas rek la mooy seen bëgg mooy sëriñ bi rek la moom mii nag jikkoom ak melokaanam yii ko ñëpp jàppe Cheikh Mouhamadul Fadal mi nga xam ne moo ko boole ci boppam fàggul na ko ko mu def ci yitte boppam ndax ba mu nekkee Madinatu Munawara di jàng sëriñ fal Fallu yebal ko fa la bind leetar yónnee sëriñ Falilou te ba muy dem sëñ bi da koo dénkoon ne ko soo demee da damaa bëgg sëñ Murtala bu ngeen demee na ngeen jàng ba dégg bu baax alxuraan dégg addis te bu leen roy ay tubaab mbaa ngeen dooni naar ba bu ngeen desuwaatee fii du ngeen wuuteeg ñii keppaar ñii ñii ñii yaroo ci seen keppaarug maam xaadim rasul waaye ku xam sëriñ Falilou sëñ Murtala xam ne loolaa ci moo tax ba mu bindee leetar ba yónnee ko sëñ mu xool ko xalima gi dëmmut soppi ko wut jëlgati wut ni arab yi def ak naar yi te école arab yi ci tubaab gii rek tax boo ci joxe woon gone bu jàngee tuuti rek nga gàtt tàmbali mu bind mbindum jalgati daanaka li muy bind mën nga ko bañ a xam sax ñu koy tuddee ay tànki jargoñ lu kenn xamul waaye moom mu dem foofee bind xalima googee yónnee ko sëñ Fallu sëñ sëñ sëñ Fallu wëlbati leetar ba ne ko maa ngi lay gërëm ci sëñ Moussa yaari yëf sa xalima gii nga xam ne soppeekuwul ca mbaakoo ak waxe loolee nag lu ca dolli ko waat ci kilifaam yi rek ma nga tax a tege ci kaw kàddu sëñ Fallu googu kon loolu la ko ñëpp nawe loolu la ko ñëpp bëggee loolu la ko ñëpp toppee loolu nag moo tax bis bii bi ko sëriñ Xaadim tuddee te pas-pas rek ak tax mu tuddee ko ko ndax sëñ Xaadim yàlla jotale jokkale na ko ak ñëpp nit ku yaatu la ko am ñëpp ñu am ko itam nag moo tax bis bi ba sëñ Abdou Samad moom sëriñ Soxay bu mi nga xam ne day gëstu Seexul Xaadim te di ci yaatal lool ba mu ko leeralee ne ko sa bis bi moo dajeeg bis bi Serigne Touba ñëwee ci sëñ Mor Anta Sali tam ko doon ganale moo dajeeg bisam booba mu daal di gën a fonkaat bis bi nag gën a bis bi nag xamaat ne itam bis bi dootul bisu caaxaan waaye du bisu bu ñuy tuddee ni tug àddina ko am pas-pas Serigne rek lañ ko a tuddee booba ak léegi mu di ko tuddee ñooñu nag ba loolu ak tey mu ànd ak Serigne muy doomi Serigne bii mu nekkoon ak moom ci ndaw ba ñuy jàng alxuraan ba nëgëni mosuñoo tàggoo nii baayam def léegi jël sëriñ fallu mi ñu tuddee sëriñ fallu jébbal ko së sëriñ xaadim mii def na loolu jël na doomam jébbal sëriñ galas ñaari doomam nee na jébbal na ko sëriñ galas kon taxawaay boobu li mu àndee ak moom rek mooy lii nga xam ne moo fi nekkoon démb barki ñu jur ko ci yar ko na ki ñu fi mujjee tudd it sëriñ galas ko tudd nee ñun fi mujjee tudd ñëpp sëriñ galas leen tudd te nee na ku fi juddoo ci sëriñ galas lay tudd kon nag loolu ànd la boo xam ne itam su sëñ xaadim doxee noonu. sëñ bi laa koy defal. nee loolu sëriñ bii la koy defal. ndax damaa juddul ci sëñ bi. ndax <laughs> daa juddoo ci sëriñ bi rek. nee na juddoo gi mu juddoo fi moom nag moo tax mu doxee ci noonu. taxawaay boobu nag moo yitte tey jii mu xam ne su koy tuddee borom pas-pas yi ci sëriñ Touba te ànd ak sëñ Galas demee moom noonu te ak seegul ci waajuram wu tedd bi man xelam doomu aadama mën naa egg ci xalaat leneen mel ni daa gisul gis-gis boobu ci moom. nee na mu boole yu pastay yooyu yëpp tax mu dara jaale sëriñ bi bisam bii màggalug daaw bi mu laataa jógee ci tànt bi dafa micro bi wax ne déwén sëñ Mourtala am sëriñ Falilu laa koy tudde kon nag yaakaar naa ne loolee mooy moo mooy toogaay bi tey moo tax boo gisee ñëw gi sëriñ Mourtala kenn dara doyu ko ci lu may mu ñëw ba nit ñi gis ko mu gis leen daa xam ne lim ci yéene ci aw jiw moo yaatu lool xam nañ ne bu fi yebaloon sëriñ Abo mee mu doy xam nañ ne bu fi yebaloon sëriñ Moustapha Ndiaye mii mu xam nañ ne bu fi yebaloon it mu ñëpp dafa ànd ak ñoom ngir bëgg yooyu yëpp daje ci barab bi daje ci ñooñ barab bi daje ci ñim fii xam naa la sëriñ Modou Sa Fallu Mbàkke magam ju baax ja waxoon daal moom lay doxee di ko barkeeloo li tax ma ñëw fii mooy su ngeen ma gisee yokk su ma leen gisee ngeen yokku te mun leen a ñëw moo ma fi andi kon yaakaar naa ndeeg on day xool doom yi rek ñu regg uut nampal ul ul xol day xool doom ya rek ñu regg sàkka ndeek umu moo mel noonu jàkkaas jëmmi sëriñ Tuubaa ji kon taxaw fi tawféex yooyu mooy liy indi sëriñ bi fii ndax way juróom wu teddoo Cheikh Mahamadul Fadal mim mim mim dara jaale waat bis bi moom sëñ Xaadim mii moom la ko jox waaye da ko ne nangu naa ko waaye jébbal naa ko sëriñ Fallu moom laa ko séddewaat moo tax nag ngeen gis ndox mi ndax sëñ Fallu sëñ Tuubaa ko boole woon ak Mikaayil mi ndox mi ba sa ko neete na taw rek day taw sa bay serigne Ousmane Bousso nee na ma Fallu jël na noor kundung satla gi yeengal ko fekku ci ndox neena wax ci kàddoom ndox ci di neena bay Baye Ousmane deg dégg kàddoom ñëw jël satla gi ne asman sini dug dug dug mu ne déedéet wax ma ndoxam taw li bay Ousmane ne du duy satla gi jox serigne Fallu mu teye dal ne ma Ousmane mané ko Mbàkke mu deeng li yeengo mané ko waa Mbàkke na ko de mu ne lu mu doon mané ko da melni asman waaw dama jël sall gi fekk ci ndox ñu defee ndoxum taw la ma dee di waxuma ndoxum taw waxuma ndoxum taw di ñàkk laaj gi ma laaj ndox ñu defee ndoxum taw laa wax ma ne waxuma ndoxum taw di kon nag jëmm jooju yaakaar naa ne suñ ko tuddee bés suñ ko dara jaalee bés ndox war naa man a wàcc moo xam te ne bii day wane rek pastasu Serigne Fallou ak digganteem ak Seexul Xadim wane pastefu Serigne Fallou ci yoon wi waaye du doon ndox muy yàq dara manoon naa doon xiinu xeddi baas yi sànni manoon naa daa taw bu loor boo xam ne kenn duutu ñëw waaye defut loola da leen di wan rek fa mu nekkoon démb ak barki démb ne fa ne ba tey ni muy faja aajo yi nit ñi defee bu leen wanee gannaaw dootuñ ko am mu ne waa ji yéen wolof da ngeen di wax ne sàmba du man kanam man gannaaw mu ne waa mu ne seen sàmba mi bokk ci mën naa sama kanam mën naa sama gannaaw te loola kenn ku ne tey yaa ko gën a gëm ndax kenn ku ne léegi yaa ngi woo sëñ Fallu ci gannaawam musoo koo teg bët te loo ko wooyee lu ne mu fekk la ca fajal la sa aajo ba soo dajee a ak xaadim kebe mu ne la dama am yitte sa nga ne ko la ilaha illa xanaa waxoo ko sëñ Fallu moo gën a gaaw ci aajo kon lam ne woon sàmba man kon man nga naa am tegtal na ko ñëpp ñëpp teg nañ seen bët kon taxawaay boobu sëriñ Fallu doon doxee te moom mii sëriñ bi da leen a digaloon moom Cheikh Mamadou Fadal ne leen ala taalibe yi duñu alali baadoo la daal di wax ne koo xam ne gënoo ko ndey gënoo ko bàyyi mu jox la boppam jox la ak njabootam jox la alalam di jooy tekki di nga yàgg fi nekk da nga caa war a moom waa ji dee leen taxawu seen yitte tey jamono bu ne loolu mooy soññ sëñ Moutalla ci jotaay yi ba jotaay yi Seexul Xadim yi doog yi def yëpp fu mu ko mën defee bu ko yógee dem ci yow aajowul sax yow ma ko nga wax ko ko ndax barki dem boo njaay dem na fi bis am sa fële ca dëkk ba ca wetu wetu wetu kii wetu Thiès ah ma Madaaro Kër daaro dem na fa te ba mu fay dem daa dégg rek ne suñ am sa woote na fa bisu xasida mu daal di jël dàllam dem ba mu demee ba àgg sëñ am sa da ko ne woon waxuma ko sama génn kilifa dama ne woon su ma ko defee rek ku fi ñëw ci sama kilifa yi rek ma xam ne moom la sëñ Tuubaa yebal ci jotaay bi moom mii la fa sëñ Tuubaa yebal moo fa teew keroog kon taxawaay yooyu mooy wane rek ne moom li muy dox ci la ko sëñ bii jàppale jamono bu ne di ko yëgal mu war caa dem teewal ko fa kon tax tànk yooyu rek mooy tànk yi ko indi fii tey ci sëriñ Xaadim mooy tànk yi ko indi fii ci dong yi mu jàkkaar lool ne jotaay ba nga xam ne moom la ñu war a def ca baas ba digal nañu suñ ci agge ñu andat serigne abou mi ak njabot ga ñew téewat jotaay bobé yëkëtil ko kaddu yi ci ñañ fay fekk ak ñako fay fekk kon nak serigne khadim serigne bi neena xolam set na guuy ndax digënté Cheikh mohammed mustafa ak Cheikh Mouhamadul Fadal njabot gi li rek ci war digënté serigne Mbacke Madina ak Cheikh Mouhamadul Fadal njabot gi li rek ci war dama la wax ci bëccëg bi ngi may wo ne la sëñ Moudou sëñ Mbacke Madina la mom waye nak nit ñepp la bok waaw nit ñepp la bok ku ne am na cër ci yow am nga cër ci moom waaw te sëñ Mbacke Madina moom kat genn kaddu gi sëñ Fallou wax ci moom rek doy na sëñ Fallou nee na sëñ Mbacke Madina moo njëkk a yëkkati ci kaddu moom ci doomi Seexul Xadim gi ne sëñ Mbacke Madina du ci yéen ci noonu la daal wax ne ëllëg yëmal xiyam sàppe sa baayam yay taxaw su ma ko ci gisul danaa ko ñor di mu fekk leen loolu sëñ Fallou ko njëkk a seere ci njabootu sëriñ Touba ba Cheikh Abdoulaye wuutoo sëriñ di ay cër di ko jox doomi sëriñ Touba yi bind sëñ Mbacke Madina ci sëriñ di ko jox nee na sëñ Tuubaa moo ko feeñu guddi dal ko def sëñ Mbàkke Madina du ci sët yi ci yéen la nee na keroog la far aw turam def ko ci biir doomi sëñ Tuubaa yi lu muy sedd doomi sëñ Tuubaa yi lay sedd sëñ Mbàkke Madina kon yaakaar naa ne doxin woowa moo fi nekk démb ak barki démb te moo fi nekk ba tey te du fi jóg ba ëllëg te Cheikh Mamadou Fadal daa amul ab taalibe li ma am mooy njabootu sëñ Tuubaa gépp jàpp na ne taalibe yi sëñ Tuubaa lañu ñoom ñëpp ay taalibe lañu sëñ Tuubaa yi sëriñ bi moo tax loolu Cheikh Mamadou Moussa Fallu magam ju baax ji ñu wax wax nañ ne ba mu jógee kër sëñ Mourou Sam tarbiya ba mu wàccee ko bam ñibi sé da ko ne kay ànd ak sëñ Mourou Adjara mii dem ñu gis sama mayal suñu ummi ak talibé bam démé ba ñëw sëñ fallu ne ko dem nga ba ñew mu na am ne ko tukki nga ba ñew mu na xam am ne ko kay wax kay wax ma nag noo doon tukkee mu ne ko da nga doon def dëkk bu ma yegg ne ana talibé sëñ fallu mi fi ne señ ma wone ma dal kërëm ku may gis moma koy won wala fay dem moom fa yob sëñ fallu ne ko sëñ la jàmm ku ne la am na ab talibé talibé yëpp talibé sëñ Touba lay te sërëb sëñ Touba nga fo dem neel ana ñu fi neel sëñ Touba loolu la sëñ fallu doon dund ba tax xàmmeewul góor ak jigen ak mag ak ndaw ak talibé kenn mom da fay nekkon di yermane yàlla jo xamne wutoon na Seexul Xadiim ci jamm di len defal lépp kon melokaan woowu ak doxin woowu képp ko aju ci moom loolu rek sa yitte loolu rek ngay doxe te it Cheikh Mamadou Moustapha digganteem ak moom rafet na rafet goo xam ne lii rek a ca war a raar lii rek a ca war a dox leneen amuru ci am te yaakaar naa jaamu yàlla moom mu ne su gën a mën a def sëñ Mbàkke Madina jàng alxuraan mi nga xam ne mooy kitaabullaah it mu ne su koo mën a gën a def sëñ Mbàkke Madina kaamil bi mu a gisee jaam ñu nuyoog ñu taxaw ci kanam mu ne bala ngeen a ngeen bokk jàng kaamilu alxuraan na kii jàng xaaju kaw kii jàng xaaju suba bi yéen a xam ko ko ciy jàng waaye bala ngeen a ubbee jàkkaarloog jàmm ñi na ngeen kaamil alxuraan nee na bi nga xamee ne sëñ Modou Sow làqu na leen nee na mu mu daal di jëlaale xaajub sëñ Cheikh nee di jàng kaamil ba mu yegg mu door a ubbi ngir nee na sëñ Cheikh kat la boole la sëñ Modou Sow boole woon ak moom ndigal li te xamagul moom ak jotam mayet nag comme déet moo tax mu di ko jàngaale balaa ubbi jàngu kaamil kon yaakaar naa kooku nag yaakaar taxawayam ci l'islam ñëpp xam nañ ko ñëpp xam nañ aw doxinam loolu mo waral fépp fo xamne amna fi yitte te it loolee mu doon jop yàlla ak noonu mu mel yëpp ni la talibi mel de amna bis bu ko serigne cheikh doon fekki medina dafa yore won dënn waye dafa summi mbaxanam yi te ne ci taw bi muy dal ay ndox comme ni taw ni tay bi serigne cheikh jégué rek mu la di génn taxaw ci biti ndox yi diko dal mag ñi ne ko ambake te nga jàll ci biir ndax da mel ndox yaa ngi lay dal te bu la sa dal naare day indi jafe-jafe mu dal di ne seex sëñ seex gaynde ma maanaam gis sama gis sama euh, euh, mbaxana lu ma teg lu ma tal bi ma taw bi teg moo ma ko gënal loolu ak taalibe ko waral daayira yi mu am yëpp di sëñ seex di nekk kenn musta ànd noo mbooloo ñëw sukk ci kanam sëñ Mbàkke Madina daayira bi kay kees gi dañuy seet jëwriñ ja ak ku mën a àndal ñu ñëw guddi jébbal ko ko waaye musta nangu dara nekk ëllëg mbooloo moo xam ne day mel ni kuy yëngu ci kanam sañ seex mbaa muy wut daraja mbaa muy wut pas mbaa muy wut positif ak lenn muy defe ne daal ci wetam di ko defe am nawle wala leneen ab taal bi rek la sa doon ci moom Cheikh Moustapha ba fii ne addiye ju ma sa jox Cheikh Moustapha mu sëgg daal ne seet leen poos yi sëñ moomu yaakaar naa dafa am lu mu indi ñu lam poos bi génn génn addiye ji tekki loxoy Cheikh moom lu saa mu ñaanal ko mu dellu kooku mooy sëñ Mbacke Madina loolu tax bis bi am Mbacke noonu lay sant baax di la gërëm xaadim bég na waaye njaboot gi bég nañ taalib yi fi daje yëpp bég nañ ndax aaju yëpp faju na tawféex yëpp itam agsi na yàlla na nga fi doxe ak bëgg-bëgg sëriñ Tuubaa bi doxe ak parce que Cheikh Mamadou Fadal bi wane yàlla na la ci jàppaleen boppam ba mu yeggale dara bañ koo dog te ñaanal borom jàng jàngkati xasida yéeg seen nawle yii leen seetaan si jëpp ndax jamono a yor jamono li a soo dee jàng ki kii yàqal mboolem kuy jaamu yàlla mooy iblis nee na saa bu iblis waaxoo jëm ci sama taalibe bi fekk muy jàng xasida mbaam fekk mu toog di ko déglu day mel ni ballon boo wala ba mu fees ci misaal nga dóor ci bal fetal noonu muy tojee nee noon noonu la xasidaam di def pexe mu iblis fexeel ab taalibeem fekk muy jàng xasida mbaa mu toog di ko déglu araba min sihriya iblis al marid wa bi xasaidi yahtadi al yaqulu salisihi ila allahi al murid musassihan li xayrihi kaydal marid Sëriñ Tuubaa nee na soo amee sa gone sax mu am mu am ak yëngu àddina bul ko xas bul ko dóor jox ko genn xasida rek ne ko dee ko jàng suba ak njoon ngoon dana ko yar dana ko jubbanti ba teg ko ci siraatal mustaqim kon nag alhamdulilahi rabbil alamin ci jàng xasida yi nga xam ne moom la sëriñ Mutala fekk si tey dégg nañ bu baax sëñ Cheikh <laughs> ñu ngi lay siyaare bu baax tax Cheikh naa mbaj xam nañ ko bu baax sëñ bi nuyoo naa ko sëñ bi keroog sëñ bi ne ko say sam njàng damaa neex lool sëy daaj damaa neex lool daal di ko ne rawatina nag soxna jaara yi waaw bi ko sëñ bi wax yàggut barki dem rek la woon waaw kon nag yaakaar naa loola moo tax tawféex ji tey ban fekkaat ko fi yàlla na aaju yëpp bokk faju ni ko sëñ bi waxee rek aajo doo nga fi nekk leneen amut aajo da nga am aajo jooju nag sëñ Fallu wax na ne aajo yëpp na faju moom aajo yëpp dana faju wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bismillahi rahmani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيرينجي جناو بنو جيبغلو كادو ييغا خامني نانكو ييكتي سي سكنم واي موي لو مونتا نياك ناخ سوين لا سيك مي دي سونو كليفا سي خاسي دي مون تي جوخ ديغل سيرين فادي كادو يي كادو يي غات لي دون موي كادو يو خامني نانكو ييكتي سي تورو جانك تخسي دي ييب tàmbale ko ci sëñ Abdoulaye mi toog ak sëriñ Xaadim ñi nga xam ni moo fi dajale mbooloo mi yëpp mbooleem jànkat yi ñi teew ak ñu teewul amee nañ amee nañ ak cant ak ngërëm loo xam ni am na tàmbaliwaay amul yemukaay ndax sa jëmm ji e, boo jógee fa nga jóge ba agsi fii xam nañ ni xasida yi rekk moo la tax a jóg e, ndax yow li ñuy gën doon ay gone xam na ni xasida yi rek moo la ñor loolu lu waay gàtt gàtt ak dégg-dégg xam nga ko ndax ci ngay dox sa lépp xasida yi nga ko jox lépp lu ñuy defal xasida yi itam ku geestu gis la fa kon xëy na boo fi ñëwee jàpp nga sëriñ xaadim waaye lépp xasida yi moo ko war sëriñ xaadim nag sa diggante ak moom ñu jiitu wax nañ ko sëñ farlu ñoom dañu doon ay koli euh, seere lañ ci ndax ba ñuy jàng xasida di ko ànd ak sëñ Xaadim teewe nañ ko loolu mooy lu yàgg loolu di law ba nëgëni seen diggante ñoom ñaar kenn mën leen kenn mënu koo xàmmee ndax boole gu leen yàlla boole waaye muy boo ànd bu dëggu ndax néew na ànd bu yàggee noonu te dara mosu cee am lu dul Euh, lu baax rek te digg ak sëñ Fallou sëñ Xaadim ñun xam nañ ci dara kon nag Mbàkke ñoo ngi lay sant bu baax a baax te di la ñaanal ci barkeb sëriñ Fallou barkeb xasida yi nga xam ni amul lu dul moom noonu euh, ñaan suñu borom gën laa guddal sow fan gën laa wéral li nga yéene liggéey sëñ Tuubaa lépp suñu borom kart na la nga def ci lu kaay sa njort am nañ mbégte lool xam naa danoo mënta wax waaye day baatum digal mu dal suñu kaw te xamul nu ñu koy def waaye ñu xam rek xam ni nii na wunu wax waaye nag sant nañ bu baax a baax sant nañ sant nañ la bu baax sant mboolem ñi nga àndal yàlla na nga fi yàgg te wér fàkkib sëriñ Tuubaa mbokk yi yéen a ngi seetaan ci biir ak ci bitim réew noo ngi nii nag abone leen bokk leen aimé leen partagé leen jaa ngeen jëf. avec bu leen fàtte laal ko si notification loolu mooy tax vidéo bu dugal rek ngeen mën cee jot.